yallahu bil mustafa sindidi yallahu wa bi khalili ibrahima yallahu ak Touba TV ak Touba TV ngir ngeen mën a jot sunu ay vidéo entre réel di abonné tey seen vidéo bi Touba TV di ànd ak Kër Bamba Déco Kër Bamba Imo ASS mbokk yi soldaaru Serigne Touba bi taxawu Sénégal yi rek moko taxajuk motax mu andil len kër Bamba Deko di dox ci lepp lu jëm ci événementiel nga soxla tante muy bâche wala nga soxla ses ay décor yu taru te am solo ay tapis rouge yu taru lol mbokk yi kër Bamba Imo di dox ci lepp lu jëm ci souf fi ci Sénégal mo xam nga bëgg kër wala terre wala nga bëgg appartement jokol ak kër Bamba Imo ASS di dox ci lepp lu jëm ci gardenage fi ci senegal nga am entreprise wala agent bëgg ko lako gardel jokol ak ASS soldaru Serigne Touba bi taxawu sénégal yi rek moko taxa juk mbokk yi jokkoo leen ak mom ci numéro bi ngeen di jakarol ci image bi 77 339 88 55 77 339 88 55 ak touba mbele tv ak touba mbele tv sering malik jai soldaru serigne touba bi borom keur bamba deko keur bamba imo ass moy anda ak yeen Imi Sobi bi di waxi serigne bi waxi serigne touba cheikhul qadim kikoy amal di sering cheikh ndjay gana, liko dalal lindi, mardi mercredi Jodi ba vendredi danan and ak yeen seen bi di waxi serigne bi fi ci touba tv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 mbokki jullit yi mbokki talibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaare noo ngi ñaanal cheikh mohammadul buntaxa xalifatul am li tarixatil muridin sunu borom subhanahu wa taala dëgëral ko te kàttanal ko ba mu mot li mbooleem ay yéeneem ak ay naalam yi nga xam ne naal na ko liggéeyal lislaam naal koo liggéeyal sayxul xadiim te mu ànd koog mbooleem jullit yi mbooleem kilifa dina yi mboolem jabatu sëriñ Tuubaa ak mboolem taalibe yi mbokk yi topp seen télévision Touba TV nu am yene dikkat ak yeen ci sunu émission bi nga xamne mom lañu duppé waxi serigne bi day melni tay mo nek sunu ñentel bi jotaay waxi bi ci julle juroom إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا صدق الله العظيم sëriñ Tuuba xaada lahu maxtaara lahu nee na ubbee ko maanaam tàmbule ci julleeg farata lu dul alhamdulillahi rabbil alamin mi ngi mel ni nga dem ci kilifa ga nga gën a fonk ne ko dama soxla mu ànd ak yow ba ca ba mu gën a fonk yegg suuf ne la waxal sa soxla loo wax lu dul alhamdulillahi rabbil alamin mi ngi mel ni nga gis janaab maanaam muus lay tekki foofa wàcc ko fa daw topp ca wér na lool lii moo di fiqu imaamu Maalik yi رضي الله تعالى عنه تيول سرين بي موم اي اتم يمجو ظاهر بسم الله الرحمن الرحيم دا نكو اوبيكو واي ديغلاول كوكو جي روي ndax mom da am ak degle ci digam ak boromam subhanahu wa ta'ala serigne touba qaala lahu allahu maxtaara lahu mas na sëlmal julleeg timis ne barab bii nuy dekkee ak ba nuy daje daa sore lool képp ko xam ne daana taxawal jullee juróom dañu koy defaral ci yoolu ay julleem lu muy war ba yegg fa nuy daje képp ko xam ne daawul taxawal jullee juróom bu dekkee dañuy jàpp ci ay tànkam di ko diri ca kanamam wuti ca taxawaay ba wér na lool malaaka yi def lii umpule wuñu li jaam bi nekkoon moo tax ku nekk war nay xam ne li nuy def ñu bari ci mbindeef yi yu dul ay doomu aadama ñi ngi koy gis di ko xam ginnaaw sunu borom subhanahu wa taala bi nag taxawal la wax waaye am na fu ko firee xam la ne moo di di ci boole naa fi lay wér na Tuuba qaala lahu allahumma xtaara lahu mas naa sëlmal gee ne dama ne koo xam ne julli da ko soxal laal walis mbir yi dana jariñu ci julli gi jariñu ci mbir yi képp koo xam ne mbir yi dañ koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci julli gi du jariñu ci mbir yi jaamu yàlla tabaraka wa taala moo di liggéey bi nu sunu borom subhanahu wa taala sant aada yi dañu leen di dimbali ci jaamu gi fa qu anfusakum wa ahlikum naara wér na lool aada yi ñooy lu mel ni lekk ak naan ak nelaw ak denc soxna ak yeneen yu mel noonu war nañoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mooy atte moo tax ku li muy digle lu ko naqari ci boppam na xam ne daa tooñ boppam moo tax sunu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduuni wa ma uridu minhum min ras قمح وما أريد أن يطعمون إن الله هو رفاع سقوة المتين صدق الله العظيم سنبرم سبحانه وتعالى وحمد القرآن مه بندو منيت أجنة لدل نويت المجا أجام يالله بغمتي نيوم وين ورسك yàlla yit bëggul kenn di ko leel ndax moom mooy joxe wërsëg yi moo tax Sëriñ Tuuba qaadalahu laahu maxtaaralahu fonkoon sunu boroom subhaanahu wa taala fonk ay ndigalam ba waxoon ne sunu boroom lépp lum ma digal def naa ko lépp lum ma tere ba naa ko te lum dogal neex na ma loolu moo taxoon mu sànni won ab deram ci bir geej ga ngir jaamu borom bi subhanahu wa taala te mom Serigne Touba waxal na bopam ne lolou du xar bax waye ak jaamu yalla kep la ci djiblu won kon kep ku bëgg Serigne Touba wala nga def talibem war nga ko top ci jaamu yalla ak bayyi tere borom bi subhanahu wa taala والله أعلم مبقي نوغي لين دي جوخ ديك داجي ألك في سونو بنين جتاي في كتوبا مبلا تي في والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته